سميتها مواهب القديم في المرء والدعاء بتكريم سميتها مواهب القديم في المرء والدعاء بتكريم سميتها مواهب القديم في المرء والدعاء بتكريم seytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim kon suñu mbokk internet yi ñu leen nuyu te di leen Kon comme ni leen ko seen site Touba Sekhawgui TV di leen ko amal tey jii ñu ngi fii ci Madiyana Mbaria ya. kër sëñ Modou Mamoun ibnu sëriñ Ibra Dar mu maam Cheikh Anta fekk fi kilifa gi nga xamante ni mooy Sidi Mbàkke mi fi wut bi loolu jàllee ñi ngi ñaanal ki nga xamante ni muy sëñ Muntaxa Mbàkke xalif général des Mourides suñ borom yàggal taxawaayam te bàyyi ko fi lool ba naa lim fas yéene liggéeyal ku tedd ki mu àggale ko di ñaanal sëñ Cheikh Jëmb Fall muy xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall suñ borom yàggal ko fi nal ko ba moom it mu àggale naa li nga xamante ni moom la kilifa yi bàyyi fi magam yeeg bàyyi mi kon ginaaw loolu ñu fekk sëñ Sidi Mbacke ibnu sëñ Modou Mamoun ibnu sëñ ibrahim dar mu mam Cheikh Anta Mbacke kon sëriñ bi ñu ngi lay nuyu assalamu alaykum wa rahmatullah taala wa barakatuh alaykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñi ngi leen di delloo nuyoo yéen waa site bi ñuy wax Sekhawgui TV di len dalal jamm ni ko waxe ci kër señ Modou mamou di nuyu mboolem ku ñuy déglu ak ku ñuy seetaan ak mboolem ñu fi teew. jërëjëf sëriñ bi xam naa kon dañuy jublu rek ci li nga xamante ni mooy liggéey bi kon xam naa laaj yi fas ni seq ge waxtaan bi mooy laaj bu njëkk bi muy lak nga ñuy indil ci sëñ moodu Mamoune ak mbokk taalibe yi. waaw ñu ngi rafetlu laaj boobu ñu ci am mbégte bu baax a baax sëriñ Modou Mamoune moom. liñ leen ci indil mooy ni nga ko waxee doomi sëñ Ibrahima Mbacke Ndar la moom maam Cheikh Anta sëñ Ibrahima Ndar doonoon ñetteelu xalifa maam Cheikh mu doon jëmm joo xam ne ab jullit la di ab taalibe boo xam ne murit saadix la ndax li tax ñu mën koo seedal ak jullitam mën koo seedal ak murit saadixam kii fi nekkal Serigne Touba Serigne Mountakha ñu ngi ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu te ko moo ko ko seeral ci ak nekkam seeral ko yi tamit ci ginnaaw kon nit moom bu ak njullitam matee ak taalibeem mat muy murid saadix doon liggéeykatub Serigne tubaa bu ràññeeku loolu rek doy na ci xam kan mooy sëñ Modou sëriñ bi tontu bi leer na te xanaa beneen laaj bi ci toftal rek mooy sëñ Modou Mamour kenn ku ne xam na ni jamono yii ñu nekk nekkatu fi waaye wàcc na fi liggéey bu am solo boo xamante ni ay soxna ñoo koy liggéey ci biir dëkk bi di ko jàllale fu ne loolu ndax mën nga ñu see wax dara. waaw sëñ Modou Mamour ñu ngi ñaan suñu borom yeesal yërmande ci moom te dolli ko ay ngërëm foofu mu nekk. Euh, bu ñu déggee sa laaj mooy day jëm ci ay réalisation ci nan la doon taxawoo jullit ñi di ko taxawoo taalibe yi rawatina ni nga ko waxee muy jigéen ñi nga xam ne dalal ngeen leen fii tey ñu wan leen liggéey bu am solo bii ñu doon liggéey liggéey la boo xam ne dafa xam ni euh, jaamu yàlla saasu su ne dafa war a ànd ak liggéey ndax àdduna bi ñu ne li yéwénal li mën a yéwénal suñu jaamu yàlla mooy liggéey bokk na ci kenn ku ne nga am métier moo xam ne ci nga nekk di ci liggéey moom nag métieram liggéeyal sëñ tubaa la woon sëñ tubaa féete woon na ko fépp defal ko lépp waaye mu xam ni taalibe yi am nañ am nañ pas-pas am pasteef ci liggéeyal sëriñ tubaa te loola la koy mottali mooy am ci luñ jàpp loo xam ne dana mën a yéwénal seen mbirum àdduna moo tax mu xool ñi nga xam ne boo xoolee fii ñu nekk ci environnement bi di bawal dafa mel ni góor ñi rek ñoo fi baaxoo am métier jàng am métier waaye jigéen ñi lii seen métier mooy nekk ci seen néegu seen néegu say di say rek loolu rek lañ def muy métier ni ko tubaab di waxee femme de ménage am nak bimu ñëwé xamné jigéen ñi ak ndaw ñi laaj nañ benn formation bo xamné moy tax ñu mëna a yéwénal seen birum aduna niñ ko waxé motax mu andi fi ño xamné dañ leen di former ci ni ñu leen ko léralé ci leen former ci céréales di leen former ci transformation moy ci transformation fruit légume ak céréales yi ñuy bay nga xamné euh, nan lañ ko mëna transformer nan lañ ko mëna dan euh, euh, lañ ko mën a conserver ba nga xam ne danañ ko mën a danañ ko mën di jaay di ci faj seeni soxla waaye loolu oh, defu ko woon ngir mu yem ci ñoom rek da koo defoon mu doon benn seen boo xam ne gis nga soxna Soxna Diané mi ngeen di fekk nga xam ne moo ko jiite fi nekk ni toll na ci ñu koy woo ci yeneen gox muy dem di leen former di leen jàngal lii nga xam ne moom la sëñ bi nàmbataloon lim ci jublu woon mooy ñu mën seen bopp waaw mën a toppatoo seen njaboot mëna yor seen kër man i ma am xam-xam bi ak liggéey bi di law loolu mo te loolu yemalewu ko fi waaw bari na ci gox yi fasantikoo yoo xam ne na tay fii ngeen ñëw waaye bu ngeen demoon ci kër massa dem gaawaan def Daaru sam ak ci dëkk yu bari da nga gis taxawaay boobu mu ci taxaw jërëjëf sëriñ bi tontu bi leer na xanaa point bi ci topp rek mooy ci wàccaayu màggal Daaru Salaam gi ku ne xam na ne waxtu yi suñ ci tollee rek ci wàccaayu màggal gi lañ nekk naka la ko taalibe di waajale ak ginnaaw bi fi sëñ bi nekkul muy sëñ Modou Mamoune. waaw màggalu Daaru gi de xam li sabab màggal gi ak li ko waral fii ñu ci jamono jullit ñëpp ñoo waroon a maase di ko waajal rawatina ak xam nañ ne sëriñ bi bi mu nekkee ci géej gi. mu nekkee foofee ca Gabon ba ko fa sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana fekkee da ko yebal si ne ko boo demee nag ma wool Cheikh Anta ba mu ñëwee fekk na sëriñ bi nekk ci pas bëgg a àggale ak dundam foofu ndax dafa gis ni foofu mu nekkoon digga moo suuf si dafa tumuranke jaamu yàlla te foofu mu nekkoon kudut moom mosu faa jaamu yàlla mosu faa jul bu ñaan suñu borom moo tëlee foofu ak dundam bi fa borom gaawaan fekkee mu wax ko lii ma la wax borom gaawaan ne ko loolu de boo ko defee Euh, waa réew ma yëpp sawara lañ jëm sëriñ bi ne ko ana lu waral loolu mu ne ko dinañ la weddi te yow ko la weddi dem sawara ne ko man Seex nag bu la tubaab bi waloon ba def la ab dóom def la ci ab butéel ñëw ne ma sa mag jaa ngi ni keroog laa lay gën a gëm waaye pas-pas boobu ñu bari tolluñu fa sëriñ bi ne ko nag lii nga wax lu yenn maana ala ma laaj ko suñu borom daal di julli ñaari ràkk ne ko suñu borom fekk si na la ci loolu fekk si na la ci loolu kon na nga ma jiitu ci réew ma maa ngi ñibbisi fépp foo ma dégg rek dama faa jaar waaye li ma jëlee ci sama tukki bi Daaru Salaam laa koy wàcc loolu moo waralu mag dimension bu toll noonu ci màggalug Daaru Salaam xëy na bari na màggal yu bari yoo xam ne dañ koy dañ koy médiatiser di ko di maanaam coow li bari ci lool waaye màggal gu bu Sëriñ Tubaa fekkee ay yoon digle ñu di ko màggal defe naa boo ci wàññee màggaluk Daaru Salaam doo ci wàññiwaat beneen mooy màggal bu màggal bu màggalal boppam ay yoon ci ak ñibbiseem te lu lu jara màggal la ndax màggal gu mag gi dem gee taxoon waaw waaye ñibbisi gi nga xam ne moo waral suñu texe ñun ñëpp mooy dégg nga ko ni mu koy waxee ci xasida wa ij'al rujuhi ila khawmi sa'adatuna wal tak yawma jam'il khalqi nirana kon ñibbiseem gogu ci la mo waral suñu lepp moy magaluk daru salam waye dañ ko daan magal ci daru salam ci suñu bop togg ay bernde bernde julit ñi jang fa ay juróomi junne juróomi junne kamil dañ ko fa jang lolu yomb ci magal go deg ñu diko fa jang waaw bis bu set ñett juróomi fan yi bis bu set danañ jàng junni kaamil waaw ba ci juróomeelu fan loolu loolu yomb ci ndigalul sëñ bi noonu la ko digle waaye sëñ mudu Mamoun mi ngeen ñëw këram dafa yokk ci màggal gi loo xam ne mooy baatinu màggal gi mooy ñun suñu waajtaay ci màggal gi ak njabootam yëpp dafa jëm ci xéewal yi nga xam ne dañ koy togg at mu jot di ko yóbbul ki fi nekkal sëñ Tuubaa muy sëñ Muntaxa ndax dafa waxoon ni màggal gi lii baatin bi mooy maam Cheikh Anta da doon berndeel Serigne tubaa ci màggal gi mooy ñu ko waykat bi ñu ko rey na luy dox rey na luy naaw bernde yi foo ko takk weesu na mu ne nag kon loolu mooy baatinu màggal kon su màggal gi jub seetee ñun waa Daaru Salaam war nañoo togg ay xéewal yóbbul ko ki fi nekkal sëñ tubaa ngir mu màndargal màggal ko loola sëñ Maamoon moo ko yokk ci màggal gi waaw Euh, daaw la ko fi màggal gi fekkut waaye mbokki taalibe yi xam nañ ne ba ma demee ci sëñ Mountakha dama ne ko de sëñ bi fu mu ko yemale woon rek danañ ko yokk loolu ci suñu pas-pas loolu yi tamit mbokki taalibe yi ñoom ñëpp taxawaay bañ amoon ci bi fi sëñ bi nekkee ba tey ñu ngi koy am di ko yokk ci seen pas-pas ak pastéef ba fii ci Madiyaana gi sax soxna yi ak daayira bi fi ne am na ay togg yu fi amal ak ci tindoo dégg fu bare bari ci ci ci kii kon nag loolu maa ngi koy fàttali mbokki taalibe di len ci soñu ñoom tamit di len xamal ni ñun mom amuñu benn bis bu dul màggarum Daaru Salaam lu ñu am ci lañ koy def luñu mëni tamit ci lañ koy def képp ko xamne mas nañ la lebal ci dar so am lañ soxla nga fay wa kon ñing ci soñu mbak mbokk taalibe yu di xamal ni ñun ñu ci aju ci bis bi lañ ñuy rawee waaw. jërëjëf sëriñ bi kaddu yi leer na at amna solo amna point bi. bi nga xam ne moom la ñuy tëjee rek mooy am nañ ak leer yu mel ni dañ ñoo leeral ne am nga daara joo taxawal fële sa ndàngaan saam muy daare alxuraan te jamono jën koy taxawal ay xat-xat te kenn ku ne xam ne jamono daa baaxoo am nu mu tëddee ndax jamono jooju mën nga cee indil leen ci ay leeral daara jooju nu mu taxawee. waaw loolu dëgg la daara jooju moom xam naa ne. Euh, nañ fa démé ak la ko waral ak nañ ko taxawlé ba bisub tay day doon lu gudd lo xamné waye ci nekkuk sëriñ bi la lañu fa sëriñ bi yobbu woon daara ju fa sëñ motala defoon ñu yobbu ñu fa ñu dem fa di jàng alquran bañ fa jàngé alquran ba noppi nag daa di fay delu ci waat fi ci touba gi di fi jàng lañu wax majalis fofu ci daaru salaam ñu démé ba 2011 nak la ma joxaat ndigal ne ma dëkk boobu nga demoon di fa di fa jàngee de sëriñ tubaa dafa ma woon ne maa fa war a liggéeyal Serigne Touba te sama jëmm da caa da caa ëpp daal di ma fa yebal ne ma nanga fa dem ñu dem fa liggéeyal Serigne Touba nag moom boo nekkee ci loo xam ne yàlla tax nga koy def ak Serigne Touba loo xam ne dëgg la foog mu amee jafe-jafe ndax xam nga suñu mbokki séeréer yi nga xam ne ñooñu ay séeréer ndox lañ yoo xam ne daanaka. diine ji taxul mu sori ci ñoom bëgg nañ sëñ Tuubaa tamit waaye taxul ñu xam dëgg-dëgg liggéey sëñ Tuubaa bi ñu fa yebale nag bi ñu demee jàngoonte nañ ceeg ay jafe-jafe yoo xam ne ci bépp fànn rek foo ko takk rek weesu na ko waaye dañoo boole xam ne ndi ndigal lañu fa yóbbu ak am pas-pas pasu liggéeyal sëñ Tuubaa ba fi ne ñu ngi ciy sant bu baax waxuma ndàngaan rek waaye tund wa eh, nga xam ne fanweri dekk ak juroom benn yi nga xam ne ñoo aju ci tund ba yëpp yaakaar naa ni fi ne tey foo dem dëkk bi ci mujj bi ci mujjee am kër sëñ Tuubaa rek bi ma tegee xeer rek léegi matul ñaari weer dëkk yi ci île bi ci ndox mi dëkk yi yëpp ci palmarin yeeg yëpp dëkk bu ne tey ji kër sëñ Tuubaa nga fa am na jàngalekatub alquran bu fa nekk di fa jàngale tay tamit xasida yaa ngi fay jib amaana xëy na bu ngeen ñëwee ci màggal gi di ngeen ci gis di ngeen ci gis ay jeexit ñoo xam ne mbokk taalibe dañu bari na fa itam ñoo xam ne nekkuñu woon ci diine ji waaye suñu borom dimbali nañu ba am na bis bu ma fay woote boo xam ne bisu 31 décembre ci laa ko jàpp nga xam ne 31 décembre moom tund woowu ni mu doon mel moom jéggi woon na dayo ci wàllu caaxaan foo ko takk rek da koy weesu bu 31 décembre jotee doo xàmmee julit ñi julit ñi ak ñi dut julit ma gis ne damay nek ci at di len jangal di len yar ci diine waye bu 31 décembre ñëw rek bis bobu day tax lepp luñ bàyyi woon dañ ci delu wa motax ma japp bis bobu 31 décembre diko fa def màggalug Serigne Touba wa ngir tënkale suñu borom dimbali ñu nak buñ ko tambalé def ak légui sa yu 31 décembre jotee danañ am ben mbokk mo xam bokku ñu diine danañ ko duggal ci diine ji lolu suñu borom dimbali nañ ci té bi ma ci amee yéene am ci pas-pas sëñ Muntaxa moom laa ko diis mu defal ma ci ay ñaan ne ma fa nga bëgg mu àgg fa dana fa àgg ay suñu borom dimbali nañu ba 31 décembre bu jotee donte danañ tuubal benn wala ñu tuubal ñaar waaw tey tamit kuréelu xasida day ci tout tànk yi maam aas boo jàpp rek ñi am juróom benn at ñi am fukki at ak ñaar ñi am ñaar fukki at ba ñi am fanweeri at maanaam âge bu ci nekk am na ay kuréel yoo xam ne ñu ngi jàng ay xasida xam naa danaa leen fa mos a invité ngeen ñëw fa bu ko defee xool liggéey bi ak taxawaay sañ sëñ Seex Say mi nga xam ne tamit moo moo mooy boroom dëkk bi ngeen ñu fekk tey wax dëgg yàlla daan def at mu jot mu gane si ma fa ganu ñetti fan waaw goo xam ne bokk na yi tamit ci li nga xam ne moo gën a mokkal liggéey bi foofu daal ñu ngi ci ñi ngi ciy sant bu baax loolu daal mooy ndono li nga xam ne moom la ñu sëñ Mamoun Baye yamale wuñ ko foofu foofu moom léegi mu mokk incha allah bu mokkee tamit dañuy xoolaat feneen rek waaw jàll fa mokkal ko rek loolu mooy suñu liggéey jërëjëf sëñ bi xam naa nag euh, beneen point bi ñuy ñëwaat mooy kenn ku ne xam ne waxtu yi bu ñu si jubee rek mooy waxtu màggal daaru salaam ndax taalibe yi nga xamante ne ñu ngi bitim réew di seetaan si bi di Touba nga TV lan nga leen di wax. waaw taalibe yi nekk bitim réew de li ma leen di wax rek mooy ñoom ñun pas-pas bi ñu am ci ci màggal màggal gi pas-pas boobu ñoom ñoo ñu ko war a ëppale waaw pas-pas bi nag du ci joxe ju ndax xam nga taalibe bu nekk bitim réew rek bitim réew moom ak lim làmboo dañuy jàpp ni lépp looy jëflante ak ñoom wala looy wax ak ñoom rek seen alali àdduna moo tax waaye ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk ci ci peggu jumaa ji ñom ñi nekk ci bitim rew ñooñu gën a xam sëriñ bi ndax fofu ñu ne ñoy non yi nga xam ne ñoy non yi gënoon a mag ci ci seen digg ak sëriñ bi te yaakaar naa ne noonu yooyu jël bi leen sëriñ bi daan foofee ñu nekk la gën a fese waaw kon ndax tey ña ko jàppoon ngir bëgg a fay lislaam fii ci réew mi da leen a daan ñaari jël jël bu njëkk bi mooy lislaam moom saxal na ko fii ci réew mi te dootul dañ te yi Serigne Touba ku ko jëlee ci réew mi dara du ci des ba noppi foofee ñu dëkk muy seen dëkkuwaay mu fekk leen fa def fa l'islam joo xam ne moom tamit jéggi na day foo ko takk wees na ko ndax état boo dem ci ci ci àdduna bi ci Europe ak Amérique ak Asie foo dem kër Sëñ Tuubaa nga fa goo xam ne yii ñuy amal ci kër Sëñ Tuubaa yi moo fay am te fi ne ñi ngi toll ci dëkk bu nekk di am ñaari kër Sëñ Tuubaa wala ñetti kër Sëñ Tuubaa waye fi bo xol fi senegal comme muñ démé dëkk bu né bu amé genn kër Sëñ touba rek da leen di doy waye ñom dëkk yi ñi ngi am ñaari kër Sëñ touba ak ñetti kër Sëñ touba ak ñenti kër Sëñ touba tay tamit xaside yi ma ngi fay jib saasu ne ñu ñu defee wacc alcorane saasu ne te mbokk te njabotuk Sëñ touba gi rek fay ñoko fay def kon ñooñu nag nañ xamni jamm ji ñu am fi ak jamm ji ñu am fofu yépp Sëriñ touba moko waral ndax tay ji mourid bu nekk ci ñun bis bi sëriñ bi ñibisé ci géej gi andi ndamam lu rëy li murit bu nekk bu sañoon sëriñ bi wàcc këram mu berndeel ko boppam kon suñ leen ci woowee ne leen bis boobu la dundal moom la ñuy jëmmal murit bu nekk bokk daaru soom ak ñàkk bokk soom na ngaa war am pas-pasu nekkat sëñ bi mooy ñibisi maa ko war a berndeel kon kooku nim ñu waree noonu la leen noonu la waree mbokki taalibe yëpp bernde gi nag dara jiitu ci dara jitu alquran ji dara jitu ci xasida yi dara ëpp ci doole nday ndax cheikh anta lepp lo xamne lepp lu dagan rek lepp lu dagan ci bis ba rek keroog waye te bis ba du won ben fan bis bu del sa ay ak bis la wa go xamne bis bu ne lepp lu dagan dana ko dana ko def dana ko def bam ba bam ba amul lu mu def sax dafa wo talibem bu ñuy wax sañ askamara ne manam da koy rendi ngir teralee ya, ko tan yi waaw ba ko ba ko sëñ bi yegee sëñ bi ne ko loolu teg ko ci suuf ndax bu ko defoon tay bu ko defoon day doon aada sa yu màggal jub seetee loolee danañ ko def waaye dafa dafa dafa dafa dafa ba amatu lu mu def wa mu wo mbok talibé na len ana kan moy tay jaayante jox bakkanam ku ñu wax sañu askamara ñew jaayante jox bakkanam kon bernde yi foofu la tollo pas-pas bobu nak ñun mom lañ wara Euh, damay dégg ñu bari ñuy wax ne maanaam mm, sëñ bi fam mu tegoon tànga mënuñu fa teg suñu tànk la mënoon mënuñu ko loolu waxi loolu waxi kuy wàññi pas-pas la ñun xel xam nañ ne mënuñu ko waaye nañ mel ni ku ko mën waaw luñ mën a waaxu wala luñ mën a daw wala luñ mën a jaayante ngir dab ko donte duñ ko dab nañ ko def loolu mooy suñu pas-pas ndax sëñ bi moo ñu defal lépp de moo ñu defal lépp ñun defaluñu suñu bopp dara ndax ay jaami tubaab rek lañu waroon a doon waaw tey mu may ñu jàmm ñu nekk ci jàmm di jaamu yàlla ak di ko liggéeyal te mboolem jaamu yàlla yi nag benn gënu cee kawee liggéeyal Serigne Touba waaw loolu moom ku ci xóotal sa xam-xam yi tamit da danga ci am lu leer. maanaam kon jërëjëf sëriñ bi wax yàlla waxtaan wi am na solo lool te tënk na waaye leeral na lu am solo lu baree bari xam naa kon dañ lay jox rek nga tàggatoo. waaw li may tàggatoo de mooy xanaa di leen sant bu baax di leen gërëm ci seen teewaay di ñaan yàlla suñu boroom seen seen site bi yéene ji am ci fi ngeen bëgg mu àgg fa yàlla na ko fa sëriñ bi àggale waaw incha allah bu ngeen tàmbalee ci sëriñ bi yem ci sëñ bi moom sëñ bi moo leen di ommatal boppam ba fi ngeen bëgg ak ngeen àgg fa di leen sant di leen gërëm ci teewaay bi ak disponibilité bi nga xamal ni tamit dëgg yalla def nañ ko muy suñu site nga xam événement yi ñi amal ci at mi yëpp bu ñu sañoon ni tamit di leen ko yegge ñu diko ko ak yeen soobee señ tuba bi ci jitu moy magaluk daru salam ki bu dé amagu leen ci ben programme pour fu ngeen di couvrir mën ngeen a fofu yi tamit ndax dañ koy def euh, at mu jot señ bi daf ma daan lo ay site yo xam ñoy ñoo di couvrir màggal gi ak xewal yi niñ koy wajale ak ba niñ koy yobbo ba ci kanamu sëñ Muntaxa waaw loolu yi tamit ñu ngi leen ci woo di sant yi tamit sëñ Moor mi nga xam ne moom it tamit njaboot la ci kër gi di taalibe sëñ bi boo xam ne ku am pastéef la koo xam ne ñu ngi koy ñaanal moom tamit seen ànd bi gën a dëgër waaw di ko gën a boole waat ak waa Madiana ñoom soxna Soxla waaw ci togg yeeg màggal geeg ci lépp rek xam ne ñoom lañ ko fettali kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di woote waat ci màggal gi rek di woo mbokki taalibe yëpp bépp boo xam ne gis nga suñu jëmm gis suñu kàddu ba amoon nañu yéene kenn ku ne ñu woola la wala ñu fekk la fa nga nekk jotale la ko waaye ñu ngi leen di woo woote goo xam ne am na woote waaye amul xaare soobee Sëriñ Tuubaa moom foo ko sëñ Modou Mamoun tegoon danañ ko teg fu ko weesu loolu moom suñu pas-pas danañ ci ak ku ci ñëw nag ñu ànd ci nga raw ba faw rek waaw jërë jëf. mbokk internet yi comme niñ leen ko waxee woon ci njëlbeen gi lañuy wala ñu ñëw ngeen si jataay bi nga xamante ni egg seen si yu rëy yëkkati jataay bi kenn ku ne xam na ni bu ñu nee sëñ Sidi Mbàkke mu sëñ Moodu Maam mu sëñ Ibra Ndar mu maam Cheikh Anta moom lañ seqaloon jataay bi ñuy waxtaanee lu am solo nag ci wàccaay Magal Daaru ak wàccaay lenn ci li nga xamante ni sëñ Moodu Maam defoon na ko fi ab liggéey boo xam ne da koo taxawaloon ay soxna di ko jiite kon sëriñ bi ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ko ñaan suñ borom yàggal ko fi lool ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall jërë ngeen jëf ba beneen yoon